Abdou Aziz Kane président association hémodialysé yu Touba Ndaamatu centre bi biñ ko ubbee ak léegi mat na quatre ans mu ngi dugg si cinquième année bi ñu ko ubbee dañ ko ubbi si benn clinique privée lañu jël ubbi ko ci kaw def ko centre de dialyse loolu déjà ça répond pas au norme beneen problème bi mooy deuxième étage la ñu nekk deuxième étage ascenseur bi moo fi nekk ascenseur bi dina toog lu mat deux mois trois mois yoo xam ne du dox technicien yi kay defar ñëwatuñu parce que bu ñu waxee ñu ne hôpital Ndaamatu fayu leen pendant un an amuñu contrat pour maintenance bi beneen problème bi mooy amuñu ambulance pour évacuation léegi ñu gis ne hôpital Cheikhul Khadim état bi daf investir mu nekk centre de référence boo xam ne Afrique de l'Ouest amul hôpital centre dialyse bu ko fi gën te ñu ngi ko tëj kenn nekku fa kon nañu tëj centre bi ñu jël ñu transféré ñu yóbbu ñu foofu bu fekkee dafa am problème mu personnel ñu jël ñu ak suñu personnel yóbbu ñu foofu mais ñu nekk si centre bi ça fait plus de quatre ans yoo xam ne coono gii rek la ñuy dundee fi mu ne nii ñëpp sonn malade yi sonn nañ trop trop léegi ñuy interpeller président de la république di interpeller ministre de la santé ak autorité guide religieux yi ñu jël ñu jàppale pour ñu transférer centre bi yóbbu ñu Cheikhul Khadim bu ko defee suñu coono mun a jeex. op suñu centre bii lu centre boo xamante ni centre bu man di féete la tout le temps depuis quatre ans li ñuy dund moom la ñuy dund malaat yi sonn nan lépp metti na waxuma dara wante boo bu bu malaat sonnee fii bala ñu ko évacuer di ko yóbbu ndaamaatu dañuy sonn du ñu am ambulance du ñu am dara. bu dul loolu prise en charge yi nu waxoon ci analyse yi lu war a wax ne à soixante quinze pour cent cinquante pour cent la ñuy defal. te bu 50 pour cent yi bala ñu see jot dañuy dem dañuy da ngay am analyse yóbbu ko ñun la bii duñ ko jël parce que dañ koy traité ci suuf. lu dul lool ñu yóbbu ñu su ci seexul xaddim bee ñun lu nu amoon na am moo nu ko gënal te seexul xaddim nu fa yóbboo du ñun malaat yi nekk ndaamaatu kese moo tax parce que malaat yi lu bari ci Séné ci Sénégal la lu bari ci Touba gii la ñu bari ci Touba gii amuñu ay moyen pour faju nan nu yób dimbali yóbbu nu seexul xaddim bee loolu la ñuy ñaan.